المصطفى صلى عليه الله من هاد هدي عذبا مشارب عذبا مشاربها سواهرا نضرا تدري بروض في الربا مستورد روض فها النسر نهو وبهاره لما غداه كل جون مجودي وجرت مدانبه fa asbaha muniyatan lil wurradil akbar riwa warruwadi wa manahta ihya al hidayati madihan منهجها للسالك المتعبد وفتحت مغلق سبلها وسددت عن ثأر نفس من هوى لم يستدي. moom Sayyid Ibnu Naasirin bi muy ñëw fi mu fekkee ni ñu soxla ni mu ni ñu soxla ku ni moom ak lañ ko soxla nam ko rafetalee ci la doon wax ci lay wéy mu ne xataa xadat ba mujj sunanun nabi sunna si yonent bi al Mustafa kade ku ñu tànn sallallahu alayhi wa sallam wala salla yàlla nga salaatu alayhi jam allahu yàlla min haadin caaji gindi hudi ak e ko gindeef na ko ba sunna si yonent bi mujj at ban daaji neex masaari bo ay e naan waayam mu ne taxawu na jullit ñi dina ko baax a baax a yar leen ba su ne mbaax fu ko nit defee yomb na ah ku la sunna rek ba nga xam ko kooroyee sunna sunna yi ci pas-pas ak ci jëf ak ci jikko mu ne yomb na ah ci liggéey Sayyid ibnu Naasirin la ku la sunna rek ba nga xam ko hmm. wala kooroyee sunna yi boog ci wax ci jëf ci jikko hmm. mu ne yomb na hmm. ah, ci pas-pas ci wax ci jëf ci jikko mu ne yomb na xataa xataa ba mujj sunanu nabi sunnati yonent bi al Mustafa kale ko ñu salla yal na def salaatu allahu yàlla min hadin ci aji gindi hudiya ko gindeef na ko ak bande aji neex masarib wa ay naanu waayam sawahira way rafet nu daran way tatax sunu tey bu doon tool beneen tool bu naata tudri dana mu xeeb bi raw din ci dër surruba ci tullu mustaari din dër bu daaja xawu toolu dër bi nekk ci digg naatam nekk ci suusu ko gën a nangu lum lay neex neex neex neex sala sunnatu nabi bu gën a rafet tey waaw ko sunnatu nabi bu gën a rafet tey raw din dër bu xam ne zaha damu na nisrinuhu nisrinam wa baharuhu ak baharam lamma qadaahu ba ko xëyalee kullu jawnin bépp niru weex kullu jawnin bépp niru ñuul bal bi dëddu la misi wadin way tawakkoon kanu dar boobu nga xam ne ba ko xiin wu ñuuloo xëyalee wala ba ko xiin wu weex wa xëyalee ba tawal ko gàncax ga mandi danga faa dem nga gis nag miskin bi xool jël bahaar bi xool nga jël yàlla ndeyi fees nga di dégg way picc yi boo foonee ci fleur yi mu neex boo naanee ci ndox mi mu neex boo xoolee ci gàncax gi mu rafet mooy tollu dër boobu ak li neex neex a bëgg ndax rek li yi mu lamboo tey sunnatul nabi ku gën a neex a bëgg kem ni nga xamee ne nit ñi noonu lañ gindee seeni pas-pas ànd ak leeru xam-xam seeni wax ànd ak moom seeni jëf ànd ak moom barkeeb loolu defeeñ ci ñoom ñuy dund ci teranga tax na jamono bi doon taalibe ibnu nasir wala nekk ci lim nekk moo gën a ku ne lu ne loolu may wax bi rek maanaam nisrin xeetu wàdd la bu neex a neex xeñ waaye dafay weex baar dafay nete ñoom ñëpp nag ñooy bokk nekk ci toolu dër bi di wute couleur ah, waaye nag ñoom ñëpp nag ci ndoxam toolu dër bi ci la ñuy naatee da ci rafetee bu fekkee da ni fi moom kenn weex nga weex ngay gis muy lu rafet neex la trop boo xoolee baar moom kenn suufra ngay gis muy lu la neex lool boo leen xoolee lool ñaar ay melo yu bokkul ngay gis yëpp bokk neex su ko defee nag noonu la diina mel dafa mel ni toolu dër la sama borom tabaraka wa taala da ko yaayal itam nag ci bi mu bindee nit ñi ñuy ñu wuutee kenn ku nekk rek ko bindee bu ko jubal ci noonu la koy jubalee rek la mu ko jox melo rek la mu ko jox mën a mën na caa la ba am ci yàlla su ko defee booy xool nit yi diine yi léeg-léeg da gis ñaar ñoo xam ne ci saa dafa mel dañoo wuute bokkuñ luñ ne am ci ma doon rafetal na lam ne bañ naw ko ca fekk na wuute gi ci kaw rek la waaye ci bir ñoom ñëpp diine la ñuy liggéeyal mel ni rek eh, wardu bi ak baar bi bi ñu wutee couleur yi teewul ñoom ñëpp rek ci der bi lañ bokk di ko baax a baax su ko defee ñoom ñëpp na xam-xamu diina rek ci la ñuy man rafetal seen liggéey na nga gisee wardu bi ak bahaar bi ci ndoxu taw bi wala ci ndoxu ndox mi roose tool bi ci la ñuy dëgg denaar yéen bu baax a baax su ko defee Ibnu Naasirin nag nee na xam-xamam daf ko taxaatan ñu bëri ñu wuutee nuñ melee te comme ci mën a doon dana sàmmanteeg maninam ba teg ko ci siratullahi al mustaqim nga gis ñu bëri ñu wuutee waaye teewul rek moom mën naa ànd ku ci nekk te ku ci nekk di jëriñu ci moom xam nga nit ñi bokkuñu xam nit ñi bokkuñu loolu moo tax ma war a ne bagaat waaw te da wax ne loo nekk rek waaw nañu ñu na ci ñëpp nekk waa ko wulu xalaat waa lu xalaat wala raw din dër wa bahaaruhu ak lamma xadaahu ba ko xëyalee kulla jawnin bépp niir wu ñuul wala niir wu weex mi wadin way tawaako wa jarat te daw masani boo ay yoluwaayam nga xam ne boo xoolee yoluwaaye ndox maa ngi daw bu baax fa asbaha moom mujji moom tolu der booba mun yettan de jotuwaay mébét lil wurra di ñaal way roodi alxat ba ndox mu da neex xarri waa mada aji mandal waru wadi ak way gubi mu nekk toolu dër boo xam ne soo bëggee ndox mu neex yomb na soo bëggee ñax mu naat yomb na mun yàlla li kulli waridin wa kulli raidin jërëjëf baax a baax maanaam Sayyid Ibnu Nasir xam-xam bi mu dafa tax jamonoom xam ci xam-xam yomb na ni mu doonee itam nit ku barke dafa tax jamonoom itam dund ci sitira nga yomb na su ko defee toolu dër bi wi cee daw moom la tuddee xam-xam moom lañ jublu dégg nga su ko defee ñax mi ñu yett moom lañ jublu tiranga waaw mooy jamono ibnu nasirin sala xam yomb na ca te itam barke tedd yomb na ca loolu mooy li mu bëgg a wax wajarat te daw madanigu ay yoonu waayam fa asbaha mu mujj muniyatan di jotu waay mébét lil wurra di ñaal way roodi alxat ba ndox mu daaji neex arriba ma daaji mandal wal wadi ak way gub yi su ko defee tilaag nag buñ ko waxee lim doon dëgg dëgg rek mooy dund bu bëri njëriñal alaxira waaw dina bu baax a baax ah loolu mooy tiranga dëgg ah loolu bëri njëriñ àllaaxira parce que mbir mi tukki rek la ah loolu bu baax a baax a baax ah nit ki tukki rek la ah mbir dund dina tukki rek la départ bi mooy mahdu mooy bi ñu juddoo lal bi ñu koy lalal teerukaay bi mooy lahdu mooy bàmmeel li ci diggante bi moo de yoon yi hmm. li ci diggante mahdu lahdu loolu mooy li mu war dox su ko defee par weer par weer yi mooy maraaxil yi waaw par semaine par semaine yi mooy lii mooy farasix yi noonu daal lay demee dégg nga su ko defee yóbbal bi bi rasulmaal yi mooy temps bi agresseur yi mooy sayatin yi ak hawa <laughs> suñ la agressé wu rek sa koom bu baax bu baax a baax ah parce que bu ñu waxee at bu ñu waxee tër bu ñu man de am jigéen ju la jubu man di nekk ci kër gu la jubu jubluwuñ ci loolu wala man di dajale xaalis a mën a am dégg ma tax ne wajarat te daw masaani boo ay yolu waayam fa asbaha mu mujj mun yatan de jotuwaay mébat lil wurradi ñaal wayroodi alxas ba ndox mu daaji neex arriwa ma daaji mandal wa ruwadi ak way gubi wa manaxta may nga nit ñi ihyaal hidaya te dundal juble mooy yaatal nga juble ndeg ni nga doonee ko am njëriñ ci nit ñi rek. waaw muy njëriñ loo jëriñ nit ñi yaatoon nga juble. waaw muy njëriñ loo jëriñ nit wa man ay wa man axka may nga nit ñi. yaa al hidayat dundal juble. moo de xam bi nga raaji leeral. min haajaha yoonu hidaya. li saalikin yaal aji def suluk mooy aji soobu kuy wut mbaax. ndax muy ku xam ne dafa bëgg a rafetal diinam wala muy ku xam ne njëriñ àllaaxira moom la bëgg wala muy ku xam ne daal yàlla ko ñor rek tànn ak yàlla la bëgg waaye la tax def sulóog yaa ko xam mu ne ci def sulóog moo xam tariqu diini la si def wala tariqul axirati ci la sóobu wala tariqul xasasiyati ci la sóobu kum ji mën doon tong ko fàkkal su dee jaaree dana àgg fa mu jëm sama naxta may nga nit ñi yaa li tawit yoonu eh, dundal juble ah, mu ne yaatal nga juble tasaare nga ko ni mi nga doone ko am njëriñ ci nit ñi moo di xan bi noon daaji leeral min aja yoonu hidaya misali ki ñaala ji def sulu al mutaabidi ku daaji jàmm xaatem muxlaqa sugliha wa sadatta anha sahra labsin mil hawa lam yusdadi wa naytaha min kulli saarin sariqin wa sakatta anha alxulla di hatta wadata jaksana wa safaftaha saffalhadi فهذا السعيق في كل بر سالك ومددت من ضبعيه ما لم يمدد حتى أقمت بالاستقامة قامة تقوى مسقف ما بها من آودي وجلوت عنه بسرار هلالها أعددته بدرا يلوه لمقتدي da ko wax ne ko dundal nga juble muy loo baaxee nit ñi nga leeral yoonu juble ba képp kuy def suluk rek jëriñu ci sa leeral gi ci lay wéy mu ne wa fataxte hubbi nga muxlaqa subliha yoonam yedda yuñ tëj li tëju woon ci subulul hidayati yëpp tëjji nga ko nit ñi dafa bëri lu leen faatoon ci xeeti mbaa ndax dañ ko xamu doon seen hitte mënu caa jëm yow nag xeete nga ca yare nga ca léegi xam nañ ko ñu ngi caa yëngatu wasadatta mëdd nga anha walis alhidaya saxra nafsin diggante ba moom lënt la mil hawaa ci bànneexu bakkan lam yusdat boobu ma deesu ko te itam suxóor yi nga xam ne xawaa mënoon na cee jaaree ba di yàq li muy yàq suxóor yooyu yow mëdd nga leen ba xawaa mënatu caa jàtt bu jàkk buur bu sañcaan dëkkam ba xàkkal da koy defal kaadaanga ba bu ko neexee mu tëj ko lu dëkkum neex mu dugg dëkk buur dañ ko daan tëj su ko defee dëkk bi buñ ko defalee kaadaanga ba buñ ko tëjee day mel ni kenn ci mën a dugg du ñàkk ay diggante diggante yoo xam ne moom danay am tuuti wóoradi ndax day mel ni daal fexe ba noonu duñ ko mën a def jaarukaay du mm. yomb diggante ñom ñoom la ñu ay suxóor mm. su ko defee yooyu ay nit ñoo xam ne ñoo fay faree pour defal ko lor ak noonu yi mm. buñ ko bëgg a jëmale ci jullit ñi ñooy def loola ñoom la ñoo muraabi toon liggéey boobu mooy ribaat gis nañ ko baax a baax ni baat bi ngay jàngee ci risaala su ko defee nit ki boo ko jàngalee ba mu xam yoonu njub nga yar ko ba mu tegee ci siratullahi al mustaqim gis na jëfee li mu xam rek la mu ngi dem ku àgg gut fan jëm la te mu rànk saytaane mën koy ko fu mu su boobaa ne yow mi nga xam ne yaa di yore kat bi nag am porox ndoll boobu seytaane man cee jaaree nax nit ki yow yaa jaay taxawu nit ki nag bu ko jël seytaane bëgg a fexel nga xamal ko ne ko pexeem seytaane la subaa yow yaa ngi juble waaye yaa ngi def ribaat te moo tax euh, na nit ñi bu baax a baax yar na leen bu baax a baax a baax mm. yenn sew-sew yi nga xam ne seytaane man na cee dugalee pexem mm. wala hawa ba dugg nit yàq ko mm. yooyu mu ngi cee taxawu nit ñi waxoon wa fataxtahu bi na moxla xasublia yoonam yada yu mu tëj wasadattan modde nga xan ha wali hidaya saxra nag seen diggante ba am lënt la min hawa ci bànneexu bakkan lam yosat doom ma deesu xamaytaha xaar nga hidaya min kulli saarin ci bépp aji rañaan saare xen ku aji sàcc te yaa koy wattu sàcc buy lëndëm te mënu ko yóbbu ne ko njub yaay ki koy wattu sàcc buy lëndëm te mënu ko yóbbu de dégg nga sàcc bi mooy saytaane ah lëndëm gi mooy réer xam nga sàcc du dara lu mooy ki ne dangay xam dara mu naxante ba jël ko dem ak moom te doo ko mu koy da ko yóbbu nga doo yéeg ne yàqal na la su ko defee nag muy dimbale ko ñaare lëndëm ak guddi ndax guddi moom mën nga caa jege barab te duñ la di gis nit nag li muy baaxle njubam moo ci gën waaw lu ni njub moom nit amu ko seetaane nag bu la gisee njub njub googu lay fas yéene naxanteeg yow ba xañ la loolu moo tax sàcc la na koy dimbale nag ci man la koo xañ mooy ko defee muy rat muy latoo leen dama réer googu man caa dëgg yàq kon moom sàcc la buy la loolu doomu seytaan yow nag doon gi nga doon jublekat hmm. da nga ko boole ni nit ñi sama kayidu seytaan bu ko ànd ak yow rek day xam pexem seytaane ci yow rek seytaane doo koy mën a yàqal xanaa nag waaw kàlla yaay kii wattu yaay yaay kii wattuñ dib léegi de te mënu ko yóbbu waxamay taxaa xaar nga ko min kulli saarin ci bépp aajara ñaan saare xin ku daaji sàcc ba fakkat sa hubbi nga xanaa walis hidaya alxulla gëf mooy jéng an haadil hadi yi walis dox ak ku ñu jéng dox ak ku ñu jàpp te itam ñun jéngoon ba mu la ñoo jóg jëm ci mbaax wala fekkeel nga leen seen i jéng jëm nañ lu bëri ci nit ñi ittibaawal hawa moo leen yóbbee ñuy tayal a jóg ci waxtu fekk dañoo xamul lu jar jóg rek waaye suñu xamoon xiimaam dañ xeexa waa bay jóg ngir nga leen xamal leen lu jar jóg suñu war a jógal xataa wadaxata ba tegee nga bihaa ci hidaya xalaa muxtaajiha ci aji haaju hidaya taaja salaam maxanaam yëkkateeku te yi ñu ngay jubal ci tiddaa nga rek nga leen di jubalee ndax nit ñoo bokk xam li mbaax di jëriñ ñoo bokk bëggal ko seen bopp ma koy xamal rek ne yëg na nu mu bëgg a xamee wa safabta te nga màng hidaya sappal hadi kem màng seet su ne koy waxal lu baax dangay kontaan ca la koy waxal ndax wóolu gum wóolu ne njëriñ ñëm la mel ni ku ñu jox seet rek na mooy kontaanee ca lañ ko jox وضعت ba nga teg biha ci hidaya ala muxtaajiha ci aji aajo hidaya taaja sana mbaxanaam yëkkateku wa sababta te nga manga al hidaya sa bala di ke manga seet fa ci sababu loolu xasasta gësëm nga xeeta fay kulli barrin ñaari wàlli bépp aji baax saalikin ku daa ji soobu loolu moo tax képp kuy def suluuk rek sawar loo ak lu këree xam muy def si loolu rek si yenn xëy yenn yenn yenn mbaax yi rek sawar loo nga ko wa ma datta tàllal nga min dafa yi ci ñaari pëdë gi kullu barin saalik kullu barin saalik maa loo xam ne lam yéen dattal la lesu ko comme ci mën a doon itam dimbalam nga ak sa yatta fay mooy sawar loo na ko madda dafa yi mooy dimbale na ko te ñuy wut mbaax ñëpp buñ xoolee ci yow li wut daf leen di jaral hmm. ñu sawar ci ne hmm. ñuy wut mbaax hmm. ñëpp ngay jëriñu ci say doxalin ak say kaddu loolu moo tax ñëpp yaa ngi leen di sawarloo waaye ñëpp itam yaa ngi leen di dimbale baasa sa jësam nga xetta fay kulli barrin ñaari wàlle bépp aji baax salikin ku daaji def sulóob wa madatta te nga tàllal men dafan yi ci ñaari pëdagi kulli barrin salik maa loo xam ne lam yem dakka la leesu ko xataa xam ta ba nga jubbante bele si xamate ci jub xamate taxawa taxawaayu ragal yàlla ba jub bi nga jub fi nga telloo ragal yàlla ci nit ñi ba mel na mu war a mel bu doon jëmm dee taxawaay ga dëngoon na waaye bañ nga ko ba mu jub ndax ni nga doonee ko mu saqito ma di aji bëj laala biha nekk na ci xamatu taqwa min awidin ci dëng dëng waaw borom xam-xam pour mu jub pour mu juble dafay jub dëkk seulement pour mu juble waaw dafay jub dëkk wa man axsanu qawlan min man daa ila allahi mimman daa ilallahi wa amila salihan hmm. a ñooy ànd waaye mujarrad daawa rek ah kooku du doy daawa rek du doy musaqqifa maanaam mbirum nga daal di daj laala di hmm. a nekk taqwa min ci danga danga wa jalawta huññi nga han hujubi siraari walis kiidayi siraar ci laala terutel taqwa yaa dunya imraat hilaalu taqwa ci gannaaw bu ñu nekkee ci guddi yu siraar siraar mooy guddi yu mujj ci weer lu ñuy wax siraar xam ne da koy lëndëm lépp hilaal mooy guddi gi njëkk ci weer xam ne ci weer la ñu ngi tàmbalee teggeekoo mbir yi noonu lay demee xam nga weer wi da ngeen wax ne xamul leer ak boppam jant bi moo di li am leer wala di jaara samsu diyaan wal qamara nuura diyaan mooy leer goo xam ne suñ ko fekk borom ko moom nuur nag mooy leer goo xam ne ci feneen la baxoo jant bi leer weer wi leer ak jant bi ci lay leeralee suusi mu ngi mel ne naaj bi bu tàngee nga taxaw ci biti nga seetu melokaanu naaj yi dana am lu ci seetu bi da mën a ci biir néeg bi leeru leeralam yi noonu rek la demee waaye mu amul leer amul leer kon laa de wax ko defee nag moom ak jant bi ak suuf yi am nu ñooy xàndee de dox dégg nga ko baax a baax léeg ak jege xante nekk seen diggante léeg-léeg ak sureexaat da nekk seen diggante léeg-léeg ñu dékkërloo xëy nii léeg-léeg ñu dékkërloo xëy ndale loolu moo tax weer wi ni nga gisee jant bi bu set lam xemoon démb mu mel ko démb rek ci sa bët lay mel weer wi du ko de demee weer wi ko nga koo mu toll nii mel nii boo léegi nga gis ko mu toll nale mel nale la koy def mooy tem li jàkkaarloog jant bi mm. loolu la ñuy mën a gis mm. moo ñoo mën a jox dara ci leeru jant bi mm. li des nag dafa am lu dox diggante moom jant bi te mooy suuf si mooy jaar seen diggante te nag weer bi bi muy teru ak jant bi suuf si moo ciy jaar lépp suuf ba mu des weer bi boo ko xaajoon fukki xaaj ak benn ba boobu rek moo cee génn dàkkar la ak weer wi wala yoo ne susu ko mooy ni nga gis wi da ko xeeb ci bis weer wi tero su ko defee guddi gi buñ ko xaajee fukki xaaj ak ñeent bi bu wéyee rek weer wi day dem léegi bu ëllëg suuf si lam yiitoon dana ci gën a wàññiwaat dara. weer yokkuwaat beneen nit fu sa sugo. su la si nekkoon bi mu dellu ci yokkaat nit fu sugo. nga gën nay rëy. suuf si gën na fi yàgg. bu gannaaw ëllëg sax suuf si dellu génnewaat beneen nit fu sugo ci weer wi. weer si diire woon démb mu dellu yokkaat nit fu sugo. nga gis mu ñaar ñetti fan yi démb mu gën a rëy ñaari fan yi. tey de moom gën a yéex a soob. noonu la koy defee te bu ko defee bu guddi fukkeel ak ñeent suñu àggee ci fukk ak ñeent nag si dafay bàyyi lépp weer wi lépp mooy daal mooy jàkkaarloo jant bi dara du ko yit bés boobu weer day génn te itam dafay nekk liy guddi gi yëpp mooy weeru Badr guddi gi yëpp da koy leer te day génn xam nga da ko yitoon ba mu don doon ko dindi par nit ko second da ko dindi par nit ko second ba mu jeex hmm. léegi day commencé at da ko yit su hmm. ne tey mooy guddi fukkeel gi ak juróom ñaari hmm. buñ ko xaajee fukki xaaj ak ñeent benn bi day nëbbu fukki ñett yi mooy génn su ko defee balay mën a fenk moom weer wi guddi gi buñ ko xaajee fukki xaaj ak ñeent benn bi mooy jeex weer wi doog a ne weer boole saa affaire bi lañ jëloon dana ko jëlaat beneen nit ko suba weer bi gën a tuuti gën a yeex a fenk mu gannaaw la saa mu dem noonu di dem noonu bu ñu àggee ci beneen fukki fan ak ñeent weer bi lépp day nëbbu waane weer wi ak jant bi ñooy bokk benn mansil wala seen mansil yi dañoo jegeante ñoo war a fenkandoo waaw bu jant bi tolloo fii seen suuf si weer mu ngi fii ron suuf si suuf si moo jaar seen ko defee weer kenn du ko guddi gi dara ci leer du ci am guddi yooyu mooy siraat jant bi nag guddi kay ci mansil moom fukki fan ak am ndax diiru at ci lay wër manasili ak boroji weer bi nag guddi kay ci mansil moom benn fan la fi am rek la yoonam su ko defee suñ tuuti rek la ko fi wàcc su ko wàccee ba soree ko kenn benn mansil wala ñaari mansil rek dana mën a génnaat tuuti génnaat googu mooy tolloog yow moom su ko defee di màggat di màggat ba àggat si badru delluwaat di gotteeku di gotteeku ba ñu àggat si siraar mm. noonu ma gis weer wi doxee nag mm. dafa mel ni itam liggéeyu borom xam-xam yi mm. noonu lay xaw di doxee dalee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba fi ñuy wax ak yow yonent bi jamono bi fi nekkee dafa yoroon saaba yar bu kéemaane kéemaane waaw ci ragal yàlla lool ak xam-xam xam lool ak itam bëgg diina lool waaw xottal ci diina lool tamit yar yu kéemaane sell lool ci jaamu yàlla ak xam-xam lool itam nag bu baax a baax ak du muy àddina ba ca dayoo ba fu sori la ci saaba yi ak wari doon lay ale yi fu sori lañ ci àggoon léegi nag moom bi mu liggéeyee ba liggéeyam pare mu wàcc ndax mat na te mbir moom bu matee rek dafay bàyyi yokk jëm ci wàññeeku ida tamma amrun bada naqsuhu tawaqa zawalan ida qila tam waaw mbir ñaare bu matee rek dafay bàyyi nag yokku de wàññeeku ba mbir ya matee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn nag lay xew ci lu mat xew ci ñu ko daan jàng sëriñ bi daan nañu wax mu ne kenn ci saxaaba yi nee na yonent bi keroog bañ ko robee baagal ba ñu fëgg loxo yi na pënd bi doon nawee ci loxo yi noonu na bëgg dina doon nawee ci xol ñu gën di sori anteeg jamono yonent bi ah bëgg lu mooy dina di am rek lu mooy bëgg dina di sosu rek ba mbir yi xaaja defet bu baax waaye sama borom nag ci nim yërëmee nag umma islamiya dafay de foofu buñ fa àggee rek dana leen warsagal borom xam-xam boo xam ne day doon kenn ci ñi ñu fi nekkal yeneen bi mu doog koy defet parce que bu defetaatee bu mbir mi beeseaat mu wàcc rek affaire bi buñ ne ba soxlaat defet kat rek sama borom dellu xebal keneen mooy na sëriñam bi nag jamono bi muy ñëw soo ko fekk nit ñi soxla defet kat la kon xëy na daal kenn la ci mujjati doone yi wala bu liggéey na liggéey yu mujjati doone yi dal daal mooy wax bi xam nga de loolu ñu ko do am na téere yoo xam ne loolu rek moo leen tax a nga anhu jóge siraar yi walis tet ay siraar ilaa la teru ter taqwa aadatte hoo xadu nga ko moom it anta alladi jaarayta arbaaban nuha fa sabaqtahum sabaqal jawaadil mujwidi anta alladi qartafta lamma axsalu فخلجت عنهم بالمعلى الأسود waa barta min lujajil maarifi lujjatan waqafat bi saaxiliha xoolul wurradi wa karanta xayra musaaxamin bixiyaadiha waratta minha kulla hadbil mawridi wa qatabta minha kulla nawrin zaahirin wa hasarta minha kulla xusnin muqtadi ñu jàng lool anta yow alladi yaay ki nga xam ne jaarayta dawlateen nga arbaba nuha borom xel yi fa sabaqtahum nga jiitu leen sabqal jawaade kem jiitu fasu naaru góor al mujhidi uraaji nangoo daw yaay ki nga xam ne danga leeroog borom xel yi ci kursi bi yàlla def nga dal de raw comme ni façon góor rawee mm-hmm. noonu nga rawee mm-hmm. léegi daal ñëpp eh, da nga góor góorlu mm-hmm. bokk ci ñi góor góorlu su ko defee kem na nga gën a njaxlase ak na nga gën may tax na donte ñëpp jëriñu nañu itam yow xamuloo morom yaa jiitu manaaqibu ahlillahi la sakka jammatun wa ma qasabatu sabqi ila littijaadi ñun loolu lañ fas denc. Mm-hmm. Ah, man naa koy bu ahlil laa yi laa sakka jammatun dama xasabaatu mm-hmm. sabqi illaa li tijaani mm-hmm. te daanaka war a mos moom li mu wax nii. Ah, loolu war a fas ci sëriñam. Ah, ah ñu ne loolu lañ war a fas ci suñu sëriñ. ñëpp baax waaye nag ki la yàlla booleel nga am ci ci mbaaxam gi. Mm. te kenn ku nekk la ko yàlla booleel moo ko gënal. Mm. nit nag li ko gënal rek lay gis ne moo gën. Mm. moo di nekk dégg waaw ni ma la ko waxee ah ñëpp baax nañ. waaye ki la yàlla booleel nag ko nga am ci ci mbaaxam gi. te nit li ko yàlla jox moo ko war a gënal. nit li ko gënal rek lay ne moo moo tax li mu wax nii talaa tooñut kenn moom la war a wax ci sëriñam de waaye ñu ne de loolu ñu fas ah tooñuñ ko ci de moom lañ war a fas ci suñ sëriñ bi de ah kon waa rek ah ñu ne tam ñu jël li ñu am rek ah noonu daal la demee. ante yow alladi yaay ki nga ta dawlante nga arbaaban nuha borom xel yi sa kem jiitu fasu naaru góor al al al mujwidi daa ji nangoo ante yow alladi yaay ki nga xam ne xasasta jam nga këyit ga lama axsaloo ba ñu coosee mbir mi dafa mel ni dafa am lu ñuy dàkk ku ne bëggu koo jam xëy na kenn moyut waaye gaañu nag biñ jamee jaminu ixsaal yow yaay ki jamee jaminu xartasa mooy li këyit bi ñu ne di sa bal bi ci digg bi la dal asal mooy da mhm. ko riisu li ñoo dàkk gaañe jam jamab riisu waaye yaa jam ci digg ba mhm. mooy lii xaaya mhm. yaa ko am dëgg gaañe ci mos yaa ko am kenn soyul ante yow alladi yaay ki ne xattas te jam nga kayit ga la ma axsaloo ba ñu coofee ba falaj te tuufu ci ñoom bil mu àlla ci xitwul mu àlla al aswadi badaa ji ñuul mhm. yaa de ki jël al xidhul muhalla xidhu mhm. boole nga xam ne ca may sarga mhm. dañoo nekk defalaal defalaal ba mu ñuul may sarga seen carte la arab yi buñ ko daan def dañoo jël benn gëlëm loj ko su ko dañ ko def ñaar fukki saam ak juróom ñett su ko defee ñu daal di wut fukki bant mm. yoo xam ne ci la ñoo dawalee may sar gi mm. juróom-ñaari bant yi ñooy yu gañaa yi mm. ñetti bant yi ñooy yu tarte yi su ko defee ku dajal ci ñetti bant yi tarte yi ñi ko dajal ñooy fay gëlëm gi mm-hmm. ñu dajal bant yi gañe yi mm-hmm. ñooy buub yàpp wi mm-hmm. noonu lañ ko daan defee su ko defee juróom-ñaari yooyu nag buñ dajee ci dobbante gañe itam duñ di xam le cër dafa am no dafa am boo xam ne benn rab benn na la yàpp mooy tëkk xam ne boo xam ne bantab gañe la dana am ñaari saam mooy taw am xam ne boo ne borom ñetti saam lay buut mooy raqiit xam ne boo borom ñeent lay buut mooy naafit xam na boo borom juróom lay buub mooy xilsu xam na boo borom juróom la lay buub mooy musbil ñu ne buñ buubee juróom ñaari saam mooy def bi di gën a foor moo koy moom boobu mooy alqitul mualla xam nga ñi gañe kenn soyu ci waaye nag borom mualla bi xam lewu ci kenn moo tax gaañe de kenn soyu ci waaye daal da nga dul morom xaj na loolu mooy lim bëgg a wax su ko defee ñetti banti perte mooy maneex ak sabeex ak waxdu ni ko dajjal ñoo fa ñoo fay gëlëm te duñ <laughs> di yaay ki nga xam ne xartas te jam nga kayit ga lamma axsaloo ba ñu ko coobee ba falaj te tuufu nga anum ci ñoom bil mu àlla ci xidul mu àlla alas wadi guraaji ñuul waa barte jéggi nga min lu jëjil maarifi ci lëggi xam-xam yi mooy géeji xam-xam yi lujjatan lëgg mu xam ne waqafat taxaw na bi sahiliha ci tefesam foolul urra bi kuyi way roodi jéggi nga géeji xam-xam yoo xam ne rootkat yu mag yi ci tefes mi lañ taxaw yow pour nga jéggi ko mooy romb nga maqaamaat yoo xam ne mm. Madina gaañu màgg màgg màgg mm. maqaama yooyu dañ ko seen rek xam nañ ko mm. waaye xàgguñ ca waaw seen nañ ko rek waaye xàgguñ ca waaw ba te jéggi nga min liggéey ci maarif yi ci liggéey xam-xam yi li jotoon lëgg mu xam ne ba ko fa taxaw na bi saa yi li ci tefesam foo loolu wër na di kuy way roodi mm-hmm. wa karaxta dëtëm nga bihiya biha ci déegi maarif yi xayra musaaxamin loon dula ko ñu rey di loo dem nga ba ca mbalkaab ya nga dal di dëtëm kenn rey di loo rek yow mooy ak nga ci maqamaat yoo xam ne yow rek yaa ca toll kenn tollu loolu ca yow moo tax kenn du rey di loo yow ci sa liggéey sa may ci sa barke ci sa lii ci sa laaj fakaraata bëtëm nga bi hmm. xiya biha simbal kay maarifi hmm. xayra musaaxamin loolu du la hmm. ko ñu la ko war a tëngaroot min haa ca xam-xam yi kulla adabil mawridi lépp aji ñaa ci rootuwaay wa qatarta witt nga min haa ci maarifi kulla nawrin gépp tóor tóor zahirin gudaa ji rafet wa asarta gësëm nga ñu ne fàq nga minaa ci xam-xam yi mm. kulla usnin bépp bànqaas mm. kulla usnin bépp bànqaas mm. mu'tadin bu daaje xëwu baax na foofu lu baax lu ñuy war a bëgg lu baax lu ku baax te war a am rek am nga ca cër boo xam ne xeebu wut xëy na loolu mooy li mu bëgg wax kulla ramahin murahabi وحللت منها كل ربع مرحب مرحب واسمت صرحك كل روض أغيدي وحللت واتشنج منها ci معارفي كل ربع bépp wàccuwaay مرحب bari bu ñu yaatal wàccuwaayu xam-xam bu yaa bu ne rek wàcce nga ca nit ku xam-xamam yaatoo te leer dafay féex ci dundinam féex itam ci diinaam yu bëree bëri leer gam koy leer mooy tax du ca dee ragal te boo nekkee ci loo ragalut doo ca xatati mu ne ko sàllaaw feeg googu nit di may xam-xam ci diinaam ak ci dundinam am nga ko ndax lépp lu nit da rek boo raam feeg ci yooyu rek am nga ko waasanta wëral nga saraaka sa gédd kul raw din bépp dër ahyadin buraaji naat toolu daru xam-xam bu naat bu ne rek wëral nga fa sa gédd mooy fu nit da jëlee xam-xam rek fu xam-xam ne rek jàng ko ante nga soofa rek ba amee fa xam-xam wa lu nga ni wara cibta minha kulla wajna ermatin wa xalabta minha kulla muskiri femridi wara cibta war nga minha ci maarifi kulla wajna bépp gëlëm gu tal nenk teng xer masin guraaji kattanu ponkalam gëlëm mu am doole mu ne war nga ko ci xam-xam suñu nattaloo ne xam-xam dafa doon ay ponkali gëlëm ponkali gëlëm mu am doole mu ne war nga ko mooy lu ñu naan dafa jafee dégg dafa tëx a dégg jàmbaar dëgg ko mën a dégg lu mën a doon yow dégg nga ko yëpp xam nga ko waxala sa nga min ha ci maarifi kulla muskiri simridin mm-hmm. bépp xenaat bu daa ji néew sow mm-hmm. wala bépp xenaat bu bëri sow falaw mm-hmm. lu xenaat néew néew sow ci maari fi satt nga ko mooy lu dara sew sew rek sa xam sa dégg àgg na ca wala lu xenaat bëri bëri sow mooy xam-xam luñ ko yéem yéem rek ak luñ ko naw naw rek ci li nga dajale la bokk waxalab te ratt nga min ha ci xam-xam yi kulla muskiri simridin bépp xenaat bu daa ji néew sow wala bu bëri sow وحليت منها بثمن المنتقى ولبثت منها كل فضفاض يدي وحليت تكايونغا منها ci xam-xam yi bisamini ci aji njëgu almuntaqa la de lu ñu tànn xam-xam bu am njëriñ bu ne rek am nga xam-xam buy tànn nit ki de dara hmm. boo ko xam-xam boo xel la nii sa yokkatan la bokkuñ xam-xam yi xemuñ dégg nga xemuñ hmm. hmm. waaye lu nit ñi xemadee noonu la xam-xam yi xemadee waaw dégg baax waa walaysa hmm. kullul ilmi nafan sa tiwaa walaysa kullul ulamaay fi tiwaa waaw walaysa kullul ilmi nafan sa tiwaa lu xam-xam bu ne mu ngi laaj sa njëriñ walaysa kullul ulamaay fi fa min ulumi ma yuqassi alqalba wa yujibu alkibra wa yunsi rabba xam ne ca xam-xam yu mel noonu wa hakada fi ulama e qawmu jazaa'uhum gadan radan wa lawmu dina la demee dina la demee dina la demee gis nga baax a baax waran war kibta war nga min ha ci maarif yi bisa mini ci aji al muntaqa la de lu ñu wala bi sawar doo nga min ha ci xam-xam yi kulla pattabin bépp aji jot yedin bu daaji yar xam-xam bu doon koddaay am nga ci koddaay lu gën a jeg nit su fekkee xam-xamam moo gën a yaatu jëfam gën a yaatu waxam lu surux te noonu la mbir war a tëddee waxuñ nit lu mu xam rek la ko wax waaye lu muy wax rek dafa war dafa war a mu xam ko sën waaw lu nit lu mu xam rek war na ko wax waaye lu muy wax rek war na fekk mu xam ko nag waaye mbubb mi bu jotut dafa am lu waroon a nëbbu te ne ci biti waaw xam-xam su àggut ba mu war a àgg borom bu duggee ci yenn kàddu yi wala yenn liggéey yi rek dana wax loo xam ne réere ku ko tax a wax dana def loo xam ne réere ku ko tax a def ko ak boo xamee dafa jot nag ba cër yëpp na bu gën du kañ waaw xam-xam bu mu meneen bu àggee fa mu war a àgg waaw kañ jëf yëpp ànd ak moom wax yëpp ànd ak moom bu ma lay defar li mu war a defar loolu moo tax loolu moo tax ñu ko de caaxaanee duñ ko xur rëb bi zidni ilma su fekkoon luy doy la sama borom bu sant yonent bi ne ko del ñaan ma di la ko yokkal xam nga kon nit dafa war a gis ne am naa ci lu doy nii rek kon sama borom bi sant yonent bi rek dañ daan bëri ko kan ata boo see xotti mbubu mm, dafa war a jot dafa war a jot dafa war a jot danaa dem gu bëri ci wax ah li ngay wax na nga ko xam bu baax dem gu bëri ci liggéey li ngay liggéey na nga ko xam bu baax wa fataata hubbi nga abdaafal makaarimi sada si teraanga yi lil wara ñaal bindéef yi wa jamaata boole nga asnaafa solooki xeeti solooki ala xam sa déglu daal di jub ndax loolu ci tegu lu ma ci tegu boo fàttaata ah wan nit ñi mooy karamatullahi yaa dimbale nit ñi bañ xam ko. de góorgóorlu ci yàlla. góorgóorlu gu ànd ak sàmmante ak adab. loolu ci yow la ko nit ñi a amee karamatullah gis nga ko baax a baax wamal karamatu fi aysin bila warain mu wala iltifatin bi sikrillahi di sani dul karama foofu du amee pudul foofu du am ci dul aysun bila warain aysun bila iltifatin bi sikrillahi mu ne ci xam fa wamal karamatu fi haysin bila warahin wala iltisaasin bi dikri llahi lisani inna alkaramata tiibun qad tadawwaa min samaa'il almustafa min ali adnani mu ne ndax ci yonent bi la ko kii doonne mu ne lay doon guy jolle ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da xeeñ fa muy xeeñ subhaana il faut mu déggoo ak melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam subhanak ki yar nit ñi ci sunna yar leen ci ixlaasul amali lillahi wahdahu mooy ki leen ubbil bunt boobu mooy ki leen ko wan so fataata hubbi nga asdafal makarimi sadafi teranga yi lil wara ñaal bendefi wa jamaata boole nga asnafa sulooki xeeti sulooki al aqasati guraaji jub warakib te war nga ak tafal majaadati joggaray tedd nga lil olaa jëm ci kawe yi sabab du may nga nekk borom yitte may ko nga jël ko dellu ko jëmeyaat ci yàlla rek waaw xam nga xam ne yàlla man la doylu walis ko tax na bi nga demee baam gi cër lu jaay sa cër da nga koo liggéeyloo ci gërëm loo yàlla rek hmm. loolu mooy mbir yi dégg nga doon lillahi akbar ah, may gi mën naa am majaada la hmm. waaye doon di ko ëpp nag mooy xola hmm. buñ jëlee may gi nag ñëwutee ci ridwaan loolu mooy rukk rukkoob ak saafil majaadati li noona waaw loolu mooy rukkoob ak saafil majaadati li noona waaw xam nga loolu ah, mooy rukkoob ak saafil majaadati li noona war war nga ak safal majaadati joggare tedd nga minoo laa jëm ci kawe yi wa mu nexta ma yees na la arafal ulumi fiqi xam-xam yi ak ak surra di réwéy dang leen xam-xam yi naka day jàpp yëpp dee nga leen baax na la ak naafal maali muxsiban wa mu nexta axra fanata forlu nga ak naafal maali wàlli kawe yi muxsiban mbir moom nga daaji jot naataango mm-hmm. jaxta forlu nga mm-hmm. ak naafal maani wàlli kowe yi mm-hmm. muxsiban mbir moom nga daaji jot naataange danga jël pour fori da jël bu naat mooy danga nekk borom yitte tey borom chance sooy góorgóorlu tey borom may waaw mm. ah, da ngay mën a sottal lu bëri waaw mm. ah, ndax may kese kese rek mm. mën naa am lu mu def góorgóorlu yi dëggu dëgg dëgg mën naa am lu mu def kon soo boolee ñaar yi nag wana jaxta sorlu nga ak naafal maali wàlli kowe yi moos si ban mbirum garaaji jot naataango wa marayta toxañ nga axla farriqaa bi xenaate xemem teefi al mujjadi cëri way xoom ci sàmmkaay mm-hmm. mboolem ku njëriñ nekk mm-hmm. te tegu kowe mm-hmm. tax na sax nga ba am di cër lu ci tegu maasilta tamtahinul layaali xaariqan jilbaabahal masdula fawqal hujjadi wa musahidan منها عيونا طالما كريت وما منيت بريب مسهدي حتى حبتك سعادة الدارين في حيث الجناز وكيمياء سوددي ما زلت مسؤولين تمتهين دينك الله يلي غدي قارقا برون غراج قطي جلبابها سن موراي المصدول غري غنيور فوق الوجد في قوة يندوري masoo dañ di jànkuwante guddi hmm. maanaam gi muy sàngee gaañ yi hmm. saa su la rek nga hmm. xotti ko jóg guddi waxtu sutura la dafay ci lu sell dafa waxtu dal la da ci def teewlu waxtu barke la soo ci jaamu ci la teew jay xëppee ci booy jaamu ci benn dër bu ko may moo tax ba nit yàlla yi ñoom kaw gu rëy rëy rëy la ci ñoom lool sax nag mm. ah jublu si guddi mm. li ko xewal la ci ñoom rek dañ cay bëgg mm. jeex ak guddi kom jeex ak xewal la ci ñoom rek daf leen di mm-hmm. waaye guddi nag bi mu ci dal gi ak sutura ak barke bi dafa lamboo sedd mm-hmm. sedd boobu dafay rob ci cër yi tayal ba li ci bakkan di bëgg rek mooy ci nay mm-hmm. ba nga xam ne yow li nga bëgg bu la jaralu dëgg dëgg dëgg dëgg xamoo yitte bu kawe rek mm-hmm. su waa njëriñ lu rëy rëy mm-hmm. moom ngay ñàkk Sayid Ibnu Nasir na quwatul aqida bi ci moom ak itteem ju kawe ji ci moom tax na ngëneeli guddim yëpp jël na ko te yàlla mosu ko gàllankoor naka noonu sedd mosu koo gàllankoor hmm. leneen mosu koo gàllankoor fii gàllankoor nit ñi hmm. dañu def ko ci guddi yi hmm. di fas ngërëmal yàlla maasil te dañu la tamtahinu di nattu allayaali ye guddi yi xaare xan mbir moom mu daa ji xotti jilbaabaha muuraayam almas doola gëre guñu yoor fawqal hujjadi ci kaw wëy yandoor yi ba mu fexe dan tagaaji fogloo min ha ci guddi yi mayonan mm. ay bët yu xam ne talama këriyat mm. yàgg na bu ñu jëmmentoo mm. tuma mu ni te na toosu leen dara bi mu fexe den ci sikk kaaji fogloo yàgg nga fogloo guddi te am na dir bi yaay kenn fogloo mooy guddi bi ngay ñëw lu bëri ci nit ñi nelaw rek lañ ko daan def ba tax na dawas lim xam ñu bëri jaaxalatuñ ko ci woon waaye yow nag bi nga ñëwee nag te bëgg laa xamale nit ñi te xamoo te xamoo ñoom mm. ah xeex naa ak yow ba tey mm. mujj jox la li nga bëgg ci moom mm. bu mosoo yi dal daa ji fogloo yow yaay ki fogloo minaa ci guddi xajoo nan ay bët guddi yaa fogloo ay bëtam yoo xam ne talama kër yet yaa gën a buñ gëmmentoo mooy da ngay ñëw lu bari ci nit ñi su ñu leen a guddi day xaye lim xam mm. li sedd bi lamboo ak tayal gi muy def ci jëmm yi mm. ak neex gi neex a nelawee mm. booba gañe na ci ñu bari ñu bari guddee xalaat lañ ci lu mooy tëdd ak sàngu rek waaye bi nga ñëwee yow nag sa yitte bu ko su quwatu na qiida nag xemul ak nit ñi ci loolu tax na ñu ko te yow ñoom tëwoon ñu ko tëwut yow bokk ci mujj nga tëw xarala waa mu ne te nattal ko bi rek mu doy de ci li ci laaj kaw la. xataa xabat ka ba ñu may la ñoom guddi yi. saadata daara ni tere ñaari kër yi. fi ay sul janaa bi ci tere boobu wàll. soo fi muy asuula di am mbootaay càng baax na boobu. وليانك المجد الذي ما فوقه في الدار من مرقى يرام ومصعد وليانك الكنز الذي ظفرت به قدما فهول العارفين الزهدي كنز متى بذرت به كف الفتى لم يفتقر لمزادة أو مزود قل للمحاول شأوه أقصر فقط حاولت إمساك الثريا باليد وجسمت ميدان الرهان مجاريا مجاريا بقريع قطن كل نهب أجردي مجانغلل mu ne fal yaani ka nala ndokkoloo almajdu tedd nga alladi gi nga xam ne maa fawqahoo nekkul ci kawam fi daari ci jamono min markan xéeguwaay mm-hmm. yuraamu bopp def na ko sàkku mm-hmm. wa masaxdin ak yëkkateekuwaay mm-hmm. teddaanga ji nga xam te mooy teddaangay xam yàlla ànd ak moom benn teddaanga tiimu ko moo gën ci lu ne de teraanga jooju doy na la waxee ndokk mm-hmm. soo xasee ba am ko mm-hmm. ku la rawatee xanaa ca loola la lay raw mm-hmm. waaye du na lu tim loolu dafa am wallahu xayrun wa abqa yàlla lu ne moo tax ah wallahu xayrun wa abqa waaye dafa yaa nag loolu moo tax mën nga am cër te du tey nga nekk di ñeete ba léegi re fali ani kana lay almajdu tedd nga alladi tedd nga gi nga xam ne maa faw ko nekkul ci kawam mooy tiimu ko fi daari ci jamono min markan benn xéegu waay yuram bu def na ko sakku wa masadin ak benn yëkkategu waay xam nga daraja joo xam ne daraja mënu ko tiim mukk déedéet te mooy alqurbu min allahi wala alwusulu ila allahi ñu bokk ci yi nga xam ne. ma adduna jeex. ma adduna jeex. ah ma ma yegg min shay'in. dina ko baax ma ma yegg min shay'in. fa qalbul mu'mini la yamutu. wa nuruhu inda al-mawti la yumha. wa safa'uhu la yatakaddar. Mm-hmm. ah. affaire iman ci lii la ci lii la ci lii la. Mm. waaye ak nu mbir mm. mën a xam nañ ne qalbul mu'mini moom du dee ba ma ba kayfa ma kaana al amru fa qalbul mu'mini la yamuutu wa nuuruhu inda al mawti la yumhaa wa safa'uhu la yatakaddar ma ne ak lu mën a taw xol bi gëm yàlla ne xol boobu moom du dee mukk du xaajaloon njëriñal dundu benn yoon te nuurul imaani boobu jëmm ji dundu suñ demee ba ñu wax ne nit ki dafay dee it nit ki moo fay jógee waaye leer gi moom dootul soxaati sell gi nga xam ne moom laa xam ne moom laa dajeeg yàlla waaye du lu muy bàyyi ci àddina da wax dëgg moom rek ko rëyee ku ko am am nga loo sotte yàlla te lu lay saxalal sëriñam bi ne fali ani kan lay ndokkaloo almajdu tedd nga alladi gi nga xam ne maa fawqahu nekkul ci kawam fi daari ci jamono min hmm. marqan benn xéeguwaay hmm. iraamu boobu def na ko sàkku hmm. wa masadin ak benn yëkkateekuwaay gis ko bu baax a baax doomi soxna lii la war jëmmal waaye warul bëgg àddina hubbu dunya baaxut mooy rasu kulli xatiatin baaxut daa dina baaxut jëmmal jëmmalal yàlla de ah. wali nekk na lay ndokkaloo alkam su alladi li nga xam ne basira tuufoona bii ci moom xin hmm. man ca njëkk foolul hmm. aarifina kuy aarifoona yi hmm. a suufa di ñu de way dëddu àddina ñiñ fi naan ñoo de alxaarifoona billah xam ne góorgóorlu nañ ci yàlla ba am leen sama borom wan bañ sopp yàlla cofeel bu xam ne yàlla rek moo leen ñor nekk ay gor doxatuñ lu ñuy ja doxatuñ ñuy jaamooti lu mo yàlla ñooñu ndam loola ñuy for mm. yow itam for nga ko mm-hmm. te loolu doy na koom mm-hmm. man arafa allaha mm-hmm. falam tuxnihi maarifatullahi fadaka saqi waaw ah, man arafa allaha falam tuxnihi maarifatullahi fadaka saqi kaleeni kana lay ndokkoloo alkanzu ndambu alladi ndamb li nga xam ne fasira tuuboo na bii ci moom ak man hmm. ca njëkk foolul aarifina kuy aarifoona yi ak su àddina da way dëddu àddina hmm. kan sun ndàmbala lu xam ne mata basirat waxtu wu tuufoo bii ci moom hmm. tëkkul fata tenkalwaay mm. lam yaxtaqir du mu haajooti mm. li masadatin ci mbuus ak ndox mm. aw mis wadin wala defukaay yóbbal mu ne ndàmbala loo xam ne saa soo ko xamee dafay sa lekk xattan sa naan faw dalay mën a yor sa biiru dund li am sax mooy danga koy bàyyi njëriñ lu dul jeexati ndàmbala loo xam ne gannaaw yor nga ko xóolu ko mm-hmm. jartul xalaat ngutu ngutu doy denc ndox ndax wàllu ndax naan buñ jotee ndax ndax ndax ragal maru ëllëg mm. ah jar su xalaat mbuur bay denc fekkal mm. ah ndax ragal xiifu ëllëg mm. ah ndambule mën nga cee amee loo dàq ndox am gudd ah ndambule mën nga cee amee loo dàq ci lay fekkal dégg nga waaw ah. te lu baax a baax a baax ah sama borom tabaaraka wa taala boo ko liggéeyee ba mu tànn la su ne doyloo ko nag ah bañ la sukkandikoo di ci lu dul moom da xoolati leneen ndax doy na wëlis lu ne waaw ah. ah day na wëlis lu ne mm-hmm. loolu moo tax mm-hmm. waaw mm-hmm. ba tax ne tamsun ndàmbala lu xam ne matta basirat waxtu tuufoo bii ci am këful fata tinqal waay lam yastaqir du mu haajooti li masaadatin ci mbuus ak ndox ah tànn goo kay boo ko amee ci yàlla moom moo lay xee dala xamalal boppam parce que bu ne ngay dund ci leere xam yàlla moo toll ak mbuus ak ndox gém naan amatu la ci soxla aw mis wadin wala defukaay yóbbal mm-hmm. moom moo lay taral itam barkeel la mm-hmm. da la indil warsak foofoogu doon mm-hmm. waaw wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haysu laa yaxtasib mooy defee too dara mbuus ak defukaay yóbbal waaw waaye du sukkandiku ci kuréel yàlla. waaw lu ma yëngatu yi da caa yëngatoo yàlla ko ca teg rek. waaye xam na ne yàlla moom mooy kiy joxe mooy kiy xañe. xam na ne mooy kiy lore mooy kiy.